boy mo de démb gaan mag sama boy bi sanki wala ko yóbbu démb dama won invité ma sen keur kat japp ma buluñ buuluñee ma futti ma ba ma set raade sama rade xuur yëpp la yëngal tay ah bon billahi wallahi taala si kaw la ma jele ba ci suuf bi mu ñewé ba ci côté dën bi nak ma ko tégal fofu sa man de sama dama vert tasarma ma man sama verre bara bi de la xawona dam non dem démb oui man de ben point rek la ma won bo xolé sama bi moom laa dese képp. salaamaaleykum. waaw Assane na ngeen def. Moodu. Moodu. Moodu fii mooy sama sànce bi. patron waaw fii mooy sànce bi Moodu néewoo ma woon soo fondement nan. Moodu waxoon nga Moodu fondement bi nga waxoon. dëgg suba la ñu ko bëgg lii. dëgg la patron. daa ma yo woon ko dëgg ba. <laughs> yow ne man patron patron patron patron bëgg nga jox ma sama bi ci man sénégalais yi man dama rox kat patron rek ngeen fi rek ngeen fi patron sama yaram doon miti fan ba la eh. kii fii lay liggéey. waaw kii waaw maçon waaw. kan moo nekk patron fi waaw pat kii laa jox sànce bi moom mooy patron bi. kaam lu ma lay kamal kii balaa ma fay jóge tey damaa tàggale bopp beeg baat bi dama koy rey. lan la yee eh, eh, eh, yee. yéen yéen fan ngeen kii yéen. kaam nga lu ma lay kamal. waaw. suma kër la ñëw. sa kër yow. mu nek ci sama dom bi ñuy fatima yeen yéen ngeen ñëw fii ak ngeen di ko. Ah, ah, ah, patron jarul yuuku jarul yuuku kam nga numa lay kàmbal su ma ko jàppoon bii danaa dagg bopp bi. yow la de. ki ni la modu la yow la de mu ngi ni asan mi la. yow la man gisuma ki yow la gis. an njiim. gis nga ni woo de. wóor na yàlla do fonan yow. billahi do fonan wor na. billahi barki wat boo ne ay bul waat bul waat. bul waat patron dëkk ba moom mënu ma fa delluwaat bay bi dafa métti dëkk ba patron. ba am rek ma nekk fii. dinaa la kaamal lenn de. bul waat patron. kii balaa ma fi jóge dina ma wax lu leer. gis nga papa ñu ngi jéggalu jéggal ñu bu baax dinaa wax ak ñoom. ñii sama xaalis laa leen jox liggéey luñu ma dara lu dul birig naan ma patron xaalis nii patron xaalis naa ma leen di jox rek ñuy lekk baax na. dégg naa sa wax kam nga du ma lay kama naa ngi leen wax ak ñoom. dinaa wax ak ñoom. suuf delluwaat si daa ko rey. Eh, ñëwal nii taxawal ni kon nag maa ngi dem taxawal nii toogal jugal jugal jugal doo toog sax jugal laa la wax yow gis nga yow yéen ñaar ñi boo leen ma moytuwul. gis nga salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum waaleykum salaam maçon yi fii lañ dëkk waaye yéen man man man man yéen yéen yéen ñaata fan ngeen fi am ak ngeen nan ngeen kañ ngeen fi siiwee nii lan la maçon yi ana ñu laa bëgg a xam maçon yaa ngi nii dëkkuñ fi de yéen ñi yéenay maçon yi dëkkuñu fi patron bi yow waaw woo silib eh xool leen waaye yow xanaa <laughs> waaye lii du xanaa lii du saa kala soo waay waay taxawal ni waay xoolal li yow ci bi. du man de moom mii la. Eh, kii leen man man ku ko fàtte ku ko fàttewul man intéressé wu ma. kan moom moom kala bi ci ah. lii dafa mel dafa xootee quoi. lii naa os naan na sama bëri ko ndox <laughs> naan na sama bëri ko gis nga nag loxi nag ci suba ba léegi ma nga tëdd di bërëngu rek la ilaha illallah xam naa ne awra yi newoon fii moom loxee ñii ba léegi ma nga tëdd di jooy ndax xam naa awra yi newoon fii moom ni roqay la sigil waaye sama xaalis jeex na waaye iya, yebbee ko ci kawam dee man nag leen rek la am li ma leen di wax waaw ku ci moom kalson bu waxul wat nako ci yalla dotul jëfandikoo jigen dama koy def mu yob eh, papa kay <laughs> patron yaa moom silib dedet ko mom war sàllaaw mom ma kon Saya def buma bu ma jàppaat bul ma jàppaat de sayma say jarbat lan maa sama yoon nañ wax ko mom kaso ma baax leen a dénk maa xam laa yéen seen anaconda yi xawma seen geen yii boo leen ko teewul billahi pay ngeen xamut pay ngeen xamul nag ko ci yalla kuko mom boko damay dem de kuko mom patron man dama demoon foofu di sang bi ma duggee si wanag bi nag may gën ma fàtte fa sama tubéy bi waaye man maa ko moom. daa man a fen lii ci kaw lan laa ko fekk. dama doon sangu de loxo ji la fanaanoo bëri dama doon sangu de. Ah, ma foog ne torchon la ah, ma ko jëj bëri mu naan ndox mi yëpp. rox jaara. Baye ñu jégalu. jëlal dinaa ñëw kër ga. dinaa la jox fukki junni. Ah. ndàmpaay. dinaa la jox fukki junni ndàmpaay. kese. teg naa ci juróom fukk. <laughs> loolu daa tuuti. ñaar fukk. fukki junne ak juróom-ñaar fukk waaw baax na maa ngi dem sama xaar patron nag patron waaye yàq ngeen sama xaalis bi waaye man bàyyi ma damay ñibbi bàyyi ma damay dem bàyyi ma damay dem waaw lépp nag yaa ma ko teg xam nga nu ma lay def dama lay jël delloo ji la dëgg ba yow fii nga ñëw dama lay delloo ji dëgg ba yow dootoo dootoo ànd teg man si waaw man maa lay jiit waaye dugg ji biir